élection présidentielle du jub si Bart wax ak Sonko waxi politicien yoo xam ni tey boo xoolee li xew dangay xam ni Bart amoon na dëgg. bat da ko yeey. da ko ah mais que li mu ko wax lu leer la nguur gi mënuñu koo jël ci mbedd mi boo ko naroon jël ci mbedd mi sax armée bi moo koy fokkati say loxo. comme léegi mënuñoo jaar foofu ba jël ko nañu waxtaan nga xam ne Macky Sall buy dem du ñu yóbbaale loolu may mu na ñaari nit buñ seqee mbir di ko xëccoo man ak yow bu ñu doon xëccoo benn affaire ñaar rek a mën a xew ma ëpp la doole dóor la nangu ko wala boog ëpp ma la doole ma toog ak wax ak yow naxanteeg yow ba nangu ko wala du loolu comme yow jéem nga li nga mën def yépp le 23 mars jaar na fi yeneen dat jaar nañ fi yàq yi bari na waaye Macky Sall gi nii toog dara xewul doo wax ak moom.